langue wolof wi nga xam ne dañ koy boole def ko mémorandum jébal ko kii nga xam ne moo fi nekkal buur moo fi nekkal buur te jéeye ji amee ci seeni loxo te nangu ko ci suñu kanam kilifa loolo duñ ci dikkaat loolo ñoom ak suñuy kilifa lañ waaye lii mooy mémorandum bi nga xam ne wëllëre yi bokk yi ak jaboot gi sëriñ ba Basiiru jaboote dañoo bëgg woo fii mboolem taskatu xibaar yi wax ak ñoom ci kanamu kilifa yii leeral leen rek amul ñaari wax jenn wax la muy leeral leen rek kàddu sëñ Basiiru bu ko mënoon fi mu ne nii ma ngi ca lalub hôpital tëdd moo soxna Sooda woy juróom wu jigéen di doomi sëriñ Muntaxa ñu kon amul capacité ñëw fii taxaw waaye bu ko mënoon moo koy def ba ñu dégtalee kàddu yii nag signeel ko boppam moo tax ñu ñëw fii ngir dëgmal ko presse bi buñ noppee it danañ leen ko jox danañ leen ko jox danañ ko jébbal it euh, autorité bi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 sëñ Moussa yilif ko Cheikh Mamadou Mountakha yilif ko tam nekk seenu keppaar te amatuk bëgg amatuk bañ tooñee tooñeel gii lañ ko tooñeel muy tooñ gu màgg màggul fa moom waaye ca njaboot gi la màgg ndax moom amatuk bëgg amatuk bañ ndax ay kilifaam lay diglu ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy police càkkutéef gi ban taxawaay lañ ci am waaw déclara décla ño loolu duñ ci dugg déclaration de presse la maa ngi jégg duñ ci dugg ndax li tax duñ ci dugg mooy sëñ bi dafa dafa wax rek littéralement li nga xam ne moo xew fee yi la bëgg rek ñuy wax ko ñoom moom ñu ngi nii di ma dégg loola wax nañ ko suñuy kilifa nañ ko tuubee